tey mo nekkoon suñu génn bu njëkk buñ ñëwoon si jam ñaajo ñu ànd ak équipe bu DGPU bi yëpp pour xool euh, visite du chantier chantier yi nga xamante ne pare na ba commencé dox si pôle bi ñu xool leen chantier yi nga xamante ne dafa nekk en cours aussi si pôle bi ñu xool leen jàppaat aussi beneen jour pour jàpp beneen euh, date boo xamante ne dañuy ñëw pour xool li nga xamante ne mooy suñuy chantier ak li jëm ci li ñuy woowee les VRD beneen bés pour l'instant li ñu gis ne mooy euh, travaux yi nga xamante ne yegg na gis nañ ne euh, entretien bi baax na gis nañ ne am na ay développeur yoo xamante ne avancé nañ bu baax ci seen projet am na ñoo xam ne xaw nañu yéex suñu objectif mooy ñooñu ñu fexe accompagner leen ba ñu gaaw euh, yeggali projet yi ba jëm ñaajo nekk dëkk bu bees bi nga xamante ne moom lañu yaakaar dëkk bu bees boobu nga xamante ne promotion bi moom la ñu président de la république Bassirou Diomaye Faye dénk te ñun ñu war a matérialiser vision bi nga xamante ni moom la am si ville nouvelle bi Diamniadio ak La Crosse li ci des nag mooy euh, euh, bi ñu ñëwee gis nañ ne investissement public yi yorin bi baax na xaw sell na euh, loolu dañ si féliciter équipe bi ñu fi fekk féliciter aussi l' ensemble des membres de équipe bi nga xam te ànd nañu ak moom ñëw tey si si si si visite bi Diamniadio waaye ñun comme dañuy accompagner dinañ accompagner investisseurs yi warat ñoom ñu gaaw yàggale chantier yi nga xamante ni moom lañ fi am lañ fi am ndax Diamniadio dafa war a nekk rapidement ville boo xamante ne ku fi ñëw di dëkk lépp loo xam ne soxla nga ko ci dëkk war nga ko fi mën a am pour nekk dëkk boo xam ne dafa développé te am na ay ay échéances yu ñuy xaar te yooyu balaa muy yëgsee dañoo war a fekk Diamniadio mu nekk loo xamante ne yemb na ba ku nit mën fi dëkk en li mu fa soxla yëpp si biir ville mën ko am fii si Diamniadio beneen bi aussi booy tey si ngoon gi bëgg nañ dem visiter siège fi nga xamante ne moom lañ bëgg tabax siège yu DGPU ndaxte ñun mënuñu ne ñun ñooy promouvoir ville bu bees bi ba pare dëkk te dëkkuñu si biir ville bi dañoo war a retourner dëkk ci biir Diamniadio euh, xam ne ku ku ñu saxla da dinañ la jege jege développeurs yi mais aussi gëmloon nañ ñi ne mën nañu déplacer wu de Dakar vers Diamniadio parce que fu boobaa foofu lépp loo nga xam ne soxla nga ko si ville di ko fa